déglu leen ma bàkkati mbaro yàlla may na ko laa sindanooru déglu leen tey ma bàkkati mbaro yàlla mi fale fal na ko buuro seexi faadilu moo aayata yoo yàlla may na ko laa sindanooru rabbana ko dogal ca xadimi bil xadimi al bashir an la mu def ku ko bañ yaa di dafoo la mu mooy waxi buuru bur yàlla mu def ku ko bañ yaa di dafoo la mu mooy waxi buuru sëñ Fallu jokku naa ca xalifatu manoo yeslu naa ca dallo bi ca biiru jokku naa jekk naa jekki naa dootu di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ca mbuuro waaxu nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej sëñ Fallu sëmbu nan sangu nan jàpp nanu sugaleef na ca duus ya fa mbuuru sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa ka suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro làng naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallu làggu naa wàlli yoo naa làng naa dul ma wàlli ka naa wàlli naa woote naa wiisi naa walla may kab ka salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Basir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba mboolem naal yi mu naal ngir lislaam mu àggale naal yëpp te tàmbali yeneen te ànd ko njabootuk seexul xadim gépp ak ummatul islam bi yëpp noonu lañuy ñuy siyaare xalifa sëriñ Fallou Mbacke sëñ Aboul Baraka di ko ñaanal moom it suñ borom may ko fan bu gudd ànd ak wér mu yàgg fi loolu te wér ba mboolem naa li mu naal ngir liggéeyal ko sëñ Fallou mu defe ko ni mu ko bëggee te ànd ko njabootug sëñ Fallou gi ak ñun donga yëpp man nag Serigne Fallilou Thiam laa tudd bokk ci secrétaire yi turandoo Serigne Fallou yi fii ñu nekk nag mooy turandoo sëñ Fallou yi nga xam ne ñoo yore màggalu Kazu Rajab waa daayiratul addaa ixul fadaahil lii dib daayira bu tudd daa daairatul adaa exul fadaahil képp koo xam ne tuddee nañ la Serigne Fallou da nga fee war a ñëw bindu ci daa daaira bi inscrire wu dagg sa carte membre ak sa rosi addiya at mu jot noonu lañ koy defee ñu ngi ko commencé woon ci ndigalul Serigne Modou Boussa Dieng daa ko ànd ak turandoog sëñ Fallou yëpp ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàlla suñu borom yokk seen leer te tax seen barke ba ci sëñ aboo mii noonu lay doxee képp koo xam ne daal tuddee nañ la sëñ Fallou Mbacke yàlla na ko suñu borom dool lay fayal te yokku leeram da ngaa war a ñëw fii ci waa daairatul adaayixul fadaahil eh, ci njiitul Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Mourtala moom xaadimu rasul ak Serigne Modou Aminta faal ak sëñ Fallou Fall ak sëñ Fallou Alaye Ndiaye Mbaye Guèye mi nga xam ne mooy suñ président national ak suñ président section Touba Alaye Ndiaye Say Faye nga xam ne ñun ñooy secrétaire yi nekk ci buntu bi ku ñëw daal di tudd sëñ Fallou moom obligatoire la da war a bindu ci daayiratul addaay xul fadaahil dagg sa carte membre ak suru si addiye ñun turandoo yi nga xam ne ñoo dëkkee Touba dañuy defar ay bernde teral gan yi mooy doonoon suñu sas turandoo yi nga xam ne ñoo nekkee euh, Tamba ñooy euh, wut lépp lu jëm ci wàllu mat ñoo koy indi sëñ Fall yi nga xam ne ñoo dëkk Njaareem ñoom su Souley Gueye ñoom ñooy toppatoo lu jëm ci wàllu añ ak ay café ak seen addee indi sëñ Fall yi nga xam ne nag ñun ñoo dëkk tubaa ñooy teeru gan yi moo tax ñooy togg ndab yi di ko indi di teral euh, gan yi sëñ Fall yi ci kër sañ tubaa gi ak fu ñu mën a nekk rek ak sëñ Fall yi nga xam ne ak ñi nga xam ne suñu borom day na teg nattu ñu nekk ci prison yi ak fépp dañ fay yóbbu ay xéewal ak i bernde ci bisub sëñ Fall képp koo xam ne tuddee nañ la sëñ Fall nag da ngay inscrire wu ci daayira bi mooy 4000 francs lay doon da ngay am carte membre ak sa reçu léegi nag chaque année lay doon moom at ba at nga ñëw dagg si reçu nag 3000 léegi fekk am nga carte membre ba noppi léegi at mu jot da ngay jox cotisation annuelle ñu ñu dëkk Touba ak li ko wër 3000 at mu jot. saa yu kasu rajab teroo saa weeru teroo rek ñu ne weeru teroo feeñ na kasu rajab nga ñëw dagg si sa reçu chaque année. non bu dee ku bees la sëñ Fallou moo xam ne day door a ñëw bindoogul mooy doon 4000. waaw waaye koo xam ne bu dee at mu jot la moom 3000 fekk bindu na ba noppi ne année 3000 mooy ndigalul sëñ bi bañ jotaat ci leneen. 3000 rek lay joxe léegi turandooy sëñ Fallou yooyu dégg naa say biir wax nga nga junj ko am na ñu war a indi ay ay matak yooyu seen taxawaay ci bisu sëñ Fallou bi. waaw mooy ñoom ñu ñoo yore màggal gi rek. ñooy organiser ñooy euh, teral gan yi ñoo leen di dalal en même temps tamit euh, sëñ Fall mu nekk dañ koo sasit benn kaamil alxuraan mu jàng ko def ko addi turandoom kas rajab gu jot woote ko ñu bind ko ci euh, bureau bi bu ko defee bu ñu cérémonie ba ci suba ga sëriñ Fall sëñ abool Baraka génn ci cérémonie bi ñu gaaral ko liggéey bi wax ko tamit ne ko turandoo sëñ Fall yi jàng nañ nangam ci ay kaamil defal ko seen turandoo moom danañ ko jotal sëñ bi sax at moo lool ndax kuréel gii nii tas na fépp ci Sénégal wala ci biir tubaab dong la yam tas na fépp am na ci sous région bi am na international am na fépp waaw am na ay dëkk am na section fu nekk ku nekk koñ boo nekk rek am na koo xam ne am nga carte yi représenté fa turandoo yi ñu koy dagg fu am suñ fawloo mën a nekk rek mën naa dem ci ku ko gën a jege rek mu mu bind fa dagg fa risoom fépp foo xam ne am sañ faalu nekk na fa te nga xam ne carte yi ñu yore ñun ñoo ko jox mën ngaa dem foofu bindoo fa waaw programme nañ ko ci reçu bi saa yu ñu la bindalee reçu bind nañ benn numéro ci ginnaaw wax la ko ne saa na nga feeg màggal na nga wàcc benn kaamil alxuraan woo ñu téléphone ñu arrêté rek. waaw bisu màggal yi comme comité d'organisation rek ñu ngi fépp waaye nag dañuy def benn base fële tamit ci bundu kër si Abdoulaye borom dër bi fa la ñuy réservé añ yi ma leen doon wax ne moom la turandoo yi indi. fa lañ koy enregistré ñoom it bind ko bu ko defee fu ñu ko war a yóbbu moo xam kër sëñ Touba la wala kër sañ Fallou wala ci marché yi wala ci jumaa yi wala ci jàkk yi wala ci prison yi ñu yóbbu ko fa waaw sëñ Fallou yi dëkk Touba ku nekk boo ko manee nga defar berne indi ci kër sëñ Abdou Borom Dër foo xam ne am mbooloo nga fa te leer nañu foofa xéewal yi demu fa danañ fexe ba mu jot fa mooy ci jumaa yi Touba waa xidma bi mooy ci jumaa yi nekk ci biir dëkk bi mooy ci prison yi mooy ci kër kilifa yëpp nag fépp rek ndax sëñ Fallou moom dane woon moom mooy Sénégal te sëñ Fallou ku ne xam ne moom sëñ Fallou ñëpp la bisam bu ñëwee ñëpp dinañ yëg ne sëñ Fallou tey bisam moo aaye. bu tey wàllu bernde yi nag moom bisu màggalu Kazu Rajab gi dañ koy commencé bernde yi gën a mag ba weeru teroo ba léegi ñu ngi bernde waaye bernde mag bi nag moom bisu màggalu Kazu Rajab lay doon mooy yaatu ba daj fépp moom ñëpp yëg ne tey Cheikh Mamadou Fadal woote ndax mën nañoo ma li ngeen amagoon ci turandoo yi sëñ Fallou fii bu gën ko xayma si ñaata la la war a toll loolu de xayma ko dina jafe lool euh, ndax ñu ngi ciy bind ba léegi yor naa ci kaye boo xam ne 900 personnes ak ci yoo xam ne moom wér na ñëw ak seen numéro téléphone waaye am na ñoo xam ne ba tey jëlaguñ leen ak euh, ñiñ bindu ren it boo boo ko gucc te ren xam naa maximum xam naa dina mat 300 wala 400 ñiñ bindeeguñ fii. jërëjëf euh, mbégte la moom nga am sa doom tudd ko Serigne Fallou Mbacke kon rek nga fàttali fàttali ñu waat yow yaay kan ak seen rôle. waaw man la sëñ Fallou Thiam bokk ci secrétaire turandoo sëñ Fallou yi fii ci waa daayiratul Adaayaxul Fadaayil suñu yéene daal mooy fas yéene liggéeyal suñu turandoo ci buntu euh, daayira bi waa daayiratul Adaayaxul Fadaayil liggéey bu sell bu tedd am ñun ak ñu ko àndal ñëpp. yàlla na bi nangul ñu suñu liggéey ci barkeb sëñ Fallou te nangu képp ku yëngu ci lu baax ci bis bi rek yàlla ku suñu borom nangu ci barkeb sëñ Fallou. ban soññee ngay def ci nga xam ne ay turandoo sëñ Fallou lan te ñëwagul nga gën leen a sensibiliser xam ne am na am na benn kuréel boo xam ne ne mën nañ fee boo bokk di fi tàbbal seen ñàkk. waaw maanaam képp koo xam ne tuddee na leen sëñ Fallou daal am na daayira bu nekk fii bu tudd daayiratul adaayaxul fadaahil euh, sëñ Modou Boussa Dieng moo ko joxe woon ndigal li 1994 ba léegi mi ngi dox yaakaar naa fanweeri at la ci ren képp ko xam ne tuddee nañ la sëñ Fallou daal nga fexe ba bindu ci daayira bi bokk ci ñi koy doxal loolu daal am na solo lool si sëñ Fallou rek tax. maanaam fii ñu toll nii nag moom képp koo xam ne mën naa jokk bëgg naa jokkoo ak ñun mën nañoo woo ci numéro 77 448 23 14 wala ci 77 054 17 01 bépp communication bi mu bëgg ba koo laaj ci turandoo yi bu soobee yàlla bu ci wootee ci numéro boobu incha allah dana ci am lu ko leer. jërëjëf Assalaamy TV seen télé bi yàlla ko suñu borom yokk ci barke bis bi tax ngeen ñëw fi di ko liggéey yéen ñëpp yokk personnel beeg yëpp ci barke bi Serigne waliyaan seeni kër tëgguwuloo sàjj nan làmbi yàlla di la rabbina wasal bi seyxil kabiiru ràgg naa wopp naa waswi nii nang ma fi suduuru sëriñ fàllu làmbi diina ji sàjj na tayoo mbàkke mbaatew jël ku biiru soggi leen jàggi leen jóggi ngeen daane mbëri yee ca biiru sëñ fàllu àdduna ki bakkan ñoo ak bànneex ak kuréy kéema fiiru